yaa gën a man mii da nga fàtte yow lu xew ma dañ ah yow yaay njëkk ñëw si man wax après ma ñëwaat si yow wax dinaa moo gën ah ah déglu ma déglu ma yaa parce que seytaane day am yaram ndax bu xeex amee di nga xeex mais man yii damay daw rees bàyyi rek du ma nga tàppen nga amoo doole yow ëppil fa fàtte nga may caa ba la doon bala may doon nga Sitadem do. Ah, lutar ripostewo ah, yo tamit donc ragal motax ripostewo. Da ko ragal. Ki gëna seytaane. Ya gëna seytaane. waaw léegi man may def nit ñi di gis parce que man damay assumer te da ngay def si suuf sa bosu gëna bon donc ki ne moo gën a Dede, déedéet li may intégré Marodi dama demone ben casting bu amoon blessing, te dama ya déggoon tay rumeur yi casting amna tam mané comme te yàgg naa ko bëgg fo ma dem def casting xool ba ma ko defee nag toog naa lu mat ay un mois fu sama appel fu sama téléphone sonné rek damay daw foog ni ñoom la fu téléphone bi sonné damay daw parce que dama doon yàqamti tellement benn jour laa toog ñu woo ma allo ma ne allo ñu ne ma man la Marietou xaw ma yooyu noonu maa lay wooyu dama doon affaire yooyu noonu. ma ne ko lan mu ne ma waaw dañ la soxla biir Marodi affaire yooyu noonu ci la intégré biir Marodi. man bi may intégré Marodi. Euh, dama gis affiche bi Instagram bi ma gisee si laawoo El Hadj Cissokho moom sax Marodi la nek moma yar c'est ton père si laa ko woowee si la ma waxé ah wa ñëwal dig ma fa fé suma ma bi ma demee numéro 800 xawma ma ñaata laa woon <laughs> numéro 800 laa woon dama désespéré woon mu ni 800 personnes ñu yem ci 300 yalla baxna ma bind. bàyyi bu ñu woo benn fanta lu ma ko sax faay fanta fanta kooku waxu rek ma jug ma ne maa ngi nii <laughs> ma ne maa ngi ñu ne ma ñëwoon ñu jox ma benn liste mais li may ran yëpp pour dugg ci kii bi si salle bi maa ngi tiit maa ngi naan ba duñ ma jàpp maa ngi tiit ñu jox ma ba ma dugg ma dugg gis ñuy ñëw ñu leen di laaj ñu naan déedéet dama rus ñu ne demal ma ne ah ba mën naa fi def lu baax après si laa demee ñu wax ma rôlu doof seytaane ku yaru yëpp ma def ko après c'est le benn am na tubaab bu fa nekkoon muy ree après si laa génn toog semaine boobu mën naa wax sax nekkuma boobu <laughs> parce que dama doon xaar appel boo xamante ne mosuma ko jot may xaar di xaar après dama désespéré mais benn jour ñu woo ma ma ne allo kookal la mu ne ma mareetu Marodi comme Marodi mu ne ma waaw dañ laa soxla woon wax wax wax ma ko ah kon d'accord dinaa ñëw si ça, si dama coupé rek woo jëy dinaa ne ma waatal woo guñ ma de ma ne ko dinañ la woo xaaral rek yow yàlla baax na ma ne ko ah kon baax na ma dem deuxième casting ñu dem defuñu fa sax deux minutes yu mat ma ji naa yoon bi pour ñu dem jël oto ji naa naa ma ah man désespéré naa. bon après si laa ko wax sama maam vu ko moom laa nekkal bi ma nekk bi ma amee un ba tey ma woo sama maam toog naa lu yàgg sa doo koy wax sama yaay sa maam ne ah naa woo sa papa laaj ko. woo sama paap sama paap neex yow boo d'accord rek baax na si laa xam ne dugg naa ba pare parce que sama maam moom lu ma neex rek neex na ko. maa ngi doon viser sama bopp ay ne garaaw bàyyi ma parce que damay dund kaa yi may kaa Zeyna ma koy dund ak sama meilleur ami Zeyna lu may def fii maa ngi koy dund ak Zeyna parce que lépp lu xew suñu ko dañ ciy kaa. benn cas du ñu rëcc information yëppee ñëw duñ duñ nettali de duñ fen duñ créé lu ñu wax rek dëgg la <laughs> mais yàlla baax na suñu école moom sonn naa xale yi primaire CI ba CM2 chaque récréation daam benn xale boo xamante ne dafa ne daf ma nopp ñooñu moom bu ma rombee classe. récréation dañ koy téye mel ni ku téye néew kii loxo yi kii tànk indi ma ko ba ci man seen waa classe kooku moom xam naa mi ngi bëgg a dee foo romb seytaane bàyyi ni seytaane mais baax na su ma defoon lu bon duñ ma wax seytaane bàyyi ni parce que kenn du ma remarqué vu que ñu may remarqué rek kon maa ngi def lu baax. <laughs> que lan moo tax sax ñu gën ñu jox rôle seytaane dafa tombé que ni à chaque fois que waa Marodi bu ñu convoqué ñu ñaar la ñuy convoqué ndoo te suñu numéro yi dafa toppante woon looloo tax à chaque fois.

ken bañu ko parce que ñepp koy e def da ngay gis nit bu sollu bon nga ko yi jank sañ nga naka te yow bu démé nga làqate ci côté nan ki lu mu sol dara baax ñëppay ka fi kenn taxaw né du ka ibadu yi sax dañuy ka lolo am <laughs> dañuy ka mé duñu ay seytaane ka la xew suñu fekk ka ñu ka mu saf no mu neex kaa moom mais duñu seytaane duñu jaxase duñu dugg ci lu suñu yoon nekkul mais amna ñuy wax dans la vraie vie niñ mel ci série bi non lañ mel bon loolu moom mënu si ñàkk nu muy amee yu négatif noonu lay positifee parce que vu que ñoom dañuy jàpp ne da ngay da ngay série da def lii dañ la jox en réalité alors que bokkul sax. li nit ñi di wax nag nous dañoo réussir suñu rôle dañ ko mën di Instagram mais loolu fierté la parce que bu ñu lu bon kenn duñu tudd dañ si ni toche parce que nous dañuy def lu baax bu lu bon duñu parce que jigi def lu baax mo tan ni nan seytaane fo tourné seytaane yi seytaane hmm kon ñoo ngi toj mi ngi toj mo ni ngi tak Magdira, jour premier casting ñoo taxawon ni mi ngi yow 6 def ci protège bu rose ma yow 6 ñun daal ñoo yoron iPhone 6 ñu taxaw taxaw ñoo dendoon ni bama duggé tamit bourlé ma dugg ma géey mané ko yow boobu xaw ma sa numu tur ma ne ko gis nga yow boo toogee fii di xaar sa numéro da ngay te tee ngaa buule mu ne ah loolu laay def ma toog fa xaar ko ba mu buule benn jour <laughs> benn yaayam yaayam di anniversaire ma dugal ko ma dugal ko ma ne ko jéy naa foo xamee kii mu ne ma kii sama yaay mu ne ko sa yaay la ma ne ko kii sama turandoo maam la ah bon te yaayam sama magu papa lay séyal kon nga xam ne foofu famille rax na fa <laughs> affaire bi du hasard de <laughs> waaw comme ni waxee rek

mu naan man dama war a ñibbi dama war a dem xaw ma fan affaire yooyu noonu ma ne ko doo xaar rek mu ne ma déedéet damay dem ma ne ko waa baax na naka laa toog lu yàgg jéeg saa mu ne ma man damay dem burle ma ne ko burle loolu wóor na yow dañ lay jàpp mu ne ma eh damay burle jey naa toogal foofu di wax ma ne ko kinne tey ngaa def nànk mu ne ma damay burle ma ne ko waa léegi demal man moom loolu dama ko dama ragal su ma duggee bañ jàpp ma nag mu ne ma mu ne ma daa maa dem mu dem dugg génn ñëw na ma yow dem naa fii boo fi toogee xoolal doo dugg nit ñi dañoo bëri affaire yooyu noonu ma ne ko déedéet bàyyi rek ma xaar léegi nag moom na mu am fu dem bàyyi ma toog ba ma affaire commencé soof xam ne burle bii dafa dox hmm. dama dugg burle te sant fa taaja ma ne sa tur dafa jot ma ne ko waaw ma ma jotagul ma ne ko jot na mu wax ma ne ko jot na man la man maa xaw ma nan xaw ma ban tur te maa ngi duggee ay 300 xaw ma ñaata te waroon nekk ba 700 burle daal di dugg. ñu def loo ma fa ay reewantul ah dafa jëf seytaane dafa lii luñ ko mën naa ne luñ ko jox rek la ñu jox après ñu dugg ñu def ko normal ñu jël suñu numéro ne après dinañ la woowaat affaire yooyu noonu ñu toog foofu la ñu xamante la kii bon man damay jàng je suis en troisième damay jàng Thiès man moom première laay def. su ma amee tournage damay ñëw damay jóge ba Thiès ñëw fii Dakar am tournée damay tourné su ma paree ñibbiwaat mais que ñuy wax que ni école bi dangay jàng li mënul nekk da war a jàng nga bàyyi théâtre yi dañuy font patati patata da ngay gëm li nga gëm en fait parce que ku bëgg ku bëgg boole jàng bi ak théâtre bi mën nga si génn bu fekkee gëm nga ko nag. mais xaw ma na bu fekkee da nga bëgg jël théâtre bi gën ko aj wala nga jël jàng bi affaire yooyu noonu da xool ni koy équilibré en fait mais nous on gère ñi naan affaire bi série bi ak jàng bi àndul loolu amul benn différence ku bëgg jàng da ngay jàng ku bëgg jàng moom franchement da ngay jàng dara du la tere jàng mën nga foo looy foo heure jàng bi jotee nga jàng nga génn si après mu bi ma gën a marqué moom mooy ba affaire. direct euh, surveillant ba mu ñëwee ci classe bi ne affaire flash cas bi ba fatal tourné ne du kenn kuddu ñaari seetaan jéy naa affaire bi daf ma metti dama nekkoon ci biiru parce que yàgg nañ ma jiin yoo xam ne du man da fatal dama ak beneen personnage boo xam ne yàgg na def yooyu balaa nag monsieur Sakho di def enquête ñun nañ xamal suñu bopp kan la tamit ñu waxante dëgg tamit gis li ngay wax soo ko ragalee man ma ñeme ko du kenn ku dul ñaari seytaan yi nekk si bi Kiné ak Dieyna. ah d'accord kon seen wax yi yëpp ñun ngeen ciblé man ak naa waaw xam naa ne de teg ngeen ñu bët waaye xam nga lan laa bëgg ngeen ŋaang ñu wàddu. moo man séquence bi ma gën a neex gën ma marqué aussi mooy bu toj naan que naa yow yaa wax que waa kër ñun Kiné bu ñu añee duñu reer. kinne yow yaa waa jey naa da lay àbb daal patati patata di ba mu naan ko kinne yow maa la abal daal en fait boobu dafa kii ba tey nit ñi mën naa ne li ma joué li ma joué yëpp boobu leen si gën a jàpp boobu moo leen si gën a neex damay romb si mbedd bi dañu am àbbkatu dàll bi ana dàll yi nga àbboon àbbkatu dàll bi parce que dafa dafa neex mun naa ne li ñu joué dafa rafet dafa nice en fait yow kii seen waa bu dee bu ñu ndékkee bu ñu añee du ñu reer loolu su ma xamee yàq tasaar yow waxuma ko de fu ma la ko man kañ laa la fu ma la waxee. kii na waxuma ko. yow yow fan laa la ko waxee. école bi fii may ma fi kenn kana mu ñëw suñu kër. yow yaa ko na yàlla wax yow fan laa la waxee Toch. jarul kii jarul jàpp bopp. ma waxuma loolu li mu wax a garaaw ñaar ay xarit ngeen yéen ay ànd di fen kon moom tamit soo ko aalee ay dàll jarul ngay wëraat ci école bi di yow tamit moo ko aal dàll. yow moo ko aal dàll boo ko bi ma gën a marqué gën ma touché mooy bi mun naa di joy si affaire ba muy naan que sama yaay xaw ma lan lan moo yar jini affaire yooyu noonu boobu moo ma gën a touché moo gën a marqué en fait. jini miinul sax sama yaay à la limite ñoom ñaar te ñu ko rusante man je ne sortais jamais aw ma woon sax fréquentation xaw ma woon kenn ndax lan toppatoo jini toggu añ toggu reer lijjanti kër gi rek léegi loolu pour lan sama yaay temps boobu yëpp moom fan la nekkoon tey bu ko neexee ñëw naan waaw lijjanti saaf yi xaw ma lan ak lan ak lan. bon ñoo ngi nuyu suñu maam yi parce que sans ñoom duñu dara. madame la maire. madame la maire ñaa ñoom kenn ñoom bëgg nañ kaa. mën nañ woote hmm. loolu am maa nuyu sama maam di nuyu sama yaay sama papa sama waa kër ñëpp bàyyi ma kenn ku lim juum. waaw loolu am na di nuyu ñëpp di nuyu sama maam sama papa sama yaay sama waa kër. bayuma kenn ak képp koo xamante ne bëgg nga jëy naa si si ci rôlu seytaane bu muy def waa maa lay nuyu fépp foo mënti nekk di la wax que ni maa leen maa leen gën a bëgg di leen nuyu di kontaan si li ngeen suivre Virginie ba nu mu jeexee nii mais dañ leen wax dafa am ay surprise de saison 2 bi mooy dàq fuuf fuuf fuuf saison 1 bi di leen wax ngeen xaar ko dina ñëw incha allah gën a def punch di ngeen gën a gis actrice yu bees ay acteurs yu bees affaire yu bees toog leen daa ngeen xaar ko wéet leen ko rek cas yi gën a bëri ñu gën a am formation affaire yooyu gën a jàngaat xaar leen ko enquête ah, mhm. ñu ngi remercier tamit waa équipe technique bi ñoom Baye Moussa Pod Almari Nicole <laughs> ñoom bu ah. ñoom ñëpp bàyyi mu kenn. kenn mu nekk sama xel.